dikkati na président Macky Sall day ak lu coow li bari bari lee fa yéene kaay naan man ma nga ca campagne ba moom waajal nag ay turne économique di tàpp tàppal askan wi mel ni ku leen di raay mbelleeka neexal ngir nag ñu sànnil candidat am bi Amadou Ba ay xob turbine yéene kaay naan man waxtu woow ma la Sall li mu war a tal bari na la mu war a def nag laataa muy soobu ji tournée bi ma ni la mooy la case de Birima brûle turbine yéene kaay naan man ma ngay bëx bëxi de ngay tàkk de kër président Macky Sall ngay tàkk ma ni la na fay daay gi di ñaaw lii mooy fi mu ne des médias bi naan man mane la soo boogunu ci campagne ñi ngi nag ca parrainage ba waaye ca diwaanu maatam waa APR ña ngi fay defante lu salte lu bon waay fitna gi nag daal di tàmbali ci biir Benno Bokk Yaakaar moom coalition ba nag jàppe parrainage bi nag ab campagne électorale turbine naan kon maatam ma ngay bax baxi ña nga xam ni ñoo ànd ak maître Malick Sall ca diwaanu maatam ñoo amaloon nag bés boo xam ne parrainage la ñu woote waaye ci pëccoxoo si su jaxasoo xeexoo daal la ndaje ba mujjee ba ñu tàmbalee rancé le siis ya gan ya commencé ñëw bennoo daal di sañ sa ñaabar ñaabari dugg ci saal ba am ñoo xam ni dañoo bàyyi ba ñu toog ci centre culturel ba nga xam ni fa la ma amee ñu daal di nag téppét lamp ya daal di fay jël ay gaz asphyxiant daal di koy tëmbal ci biir saal bi saqat geeg toxo toxo noppil gi mel ni tuleeg maale sabotage ga daal di tàmbali coow laak bër ga daal di tàmbali timboo ma nga xam ne mooy porte parole coalition ba foofe ma nga naan leen booloo leen ko mooy daañu yàqule le laaxu tribune yéene kaay naan kon en tout cas maatam moom jaxasoo na daal fayal allahu Walf Quotidien nan kon fi mu ne réew mee jaxasoo moom Benno Bokk Yaakaar benn noon la am bu muy jàmmaarloo ci élection présidentielle yi moom mooy njëkk yoo xam ne daal dinay cher lépp daal di yokku ci réew mu Sénégal kii nag fi mu ne moom la Amadou Ba war a xeexal de njëg yu cher yi moom la Amadou Ba war a xattar bi ba biir weex mu tekki suuf su ko deful ma ni la pale bee séen la cay am wala it bu président Macky Sall di tàggoo mu ànd moom tàggoo fa yàllaahu waaye dugg ba moom weccoo léngeeg président Macky Sall mënta ne yor yor yéene kaay naan Bakary Domingo Mané analyste politique ma nga naan diggante président Macky Sall ak Amadou Ba ñett yii la confiance ak défiance Sall bu ko wóoloo ca wet gaag nga am lu muy sóor ngir ëllëg ndax à tout moment lu ne mën naa am diggam ak Amadou Ba waaye tamit kan ci ñoom ñaar moo war a dëkk moroomam en tout cas mbir mi jaxasoo na daal l'enquête ko di jee naan man Khalifa Babacar Sall kay kenn gënu koo jaxasoole ci réew mi moom Khalifa Babacar Sall yeewi askan wi moom ber nañ ko naan millième daal di beddeeku fa yallaaxu sori lool Khalifa Babacar Sall ña nga xam ne ñooy force de gauche yi mel ni ñoom it ko mës a xam xaaf Khalifa Babacar Sall nag ma ne la fi mu ne ngir mu dagat baatu askan wi war a liggéey dëgg-dëgg moo ne day ñamu àndal ña nga naan am na ñoo xam ne ay der lañu fas na nu yéene fekk si taxawu moom xaaf nag ña nga xam ne rëkkale nañ leen ca parrainage ba l'enquête ko di ñee naan man boo moytul mën na caa xaar de ndax mën na caa tibb aslëf daal di fegg ca wetam tribune yéene kaay naan man Ousmane booba ma ngay xaar atte mag Mame Mbaye Niang lan la ci ëttu attekaay bu kawe bi wax ndax nag dogal bu mu ci jël bu dul ne ko atte boobee jaarul yoon Sonko mën naa yàqule laas yéene kaay naan man en tout cas Ousmane Sonko tey jii ëllëgëm mi ngi ci loxol ëttu attekaay bi gën a kawe ci diggam ak Mame Mbaye Niang Vox Populi naan ko déet ak kay nan ko rajee ci liste électorale yi ndax moom juge si fay gannaaw ba nga xam ne nee na Sonko nañ ko intégré waat acte deux ba posé na ko moom moo di jébbal notification préfet bu Ziguinchor ne leen atteeg Ousmane Sonko bi dañu ko defee dañ ko patam patamee yàkkamte ko teg ko loo xam xam ne duy daanam nañu delloo Ousmane Sonko mii ay droit am te delloo Ousmane Sonko ay droit am nag dëgg-dëgg mooy fexe ba mu bokkaat ci élection yi libération naan man gannaaw Ousmane Sonko grève de la faim bi bentalab sow kenn ci moom ñu tëmbal ka kaso soobu na ci grève bi bentalab naan man ñan ma jàppandooloon ci mbiru Juan Branco bi moom Juan moom libre na fa yallaaxu ñeneen ñan ca taqe woon libre nañu man ñu bëgg maa sacrifier def ma bëyug sarax gi duma ko nangu naan leen sama jàpp gi jaarul yoon nañ ma bàyyi tribune yéene kaay naan man boobu président Macky Sall moo Amadou Ba day ña nga soobu ca campagne ba yéene kaay bi naan maan diggante Kaolack Kaffrine ak diwaanu Fatick Sall ak Amadou Ba fas nañ ko yéene wër Le Soleil yéene kaay naan kon président Macky Sall nag war a soobuwaat ci yeneen projet yu mag diggante Ndakaaru Saint-Louis ñu war fa taxawal autoroute boo xam ne ñaari téeméer ci kilomètre lay jaar diggante Tiwaawan Mexe Ndand Ngéewul luga ak Gandoo moom président makki Sall war fa xàll yoon ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci milliards ñu war ko ci def réew mi quotidien naan maan boobu FMI ma ngay xamle dina croissance su jëm kaw laas naan maan boobu libéraux yi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Thiès ñoo doon xeexoo xeexoo gu métti ba maar day taali ca seen permanence ba teye salaat yenn mbir foofee moo waral seen xeexoo goo xam ne métti na lool turbine yéen kaay naan boobu président Macky Sall day ma ngay dàqe ni ki démb daal jël naay ankara moom Sall di effacé ko gome Mamadou Moustapha Diagne dàq nañ ko ca ministère de l' éducation nationale jégeem ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ne moo ko waral laas naan maan boobu dégaa yaa ngi ci réew mi cinquième ca collège ba ñoom la benn tracteur daal di jaar seen kaw ñu daal di faatu ci saa si moom docteur Cheikh Omar Anne ministre de l' éducation nationale ni ki démb demoon na nemmeeku ji njaboot gi ànd caag inspecteur d' académie bu Thiès naan leen lii am tey fii ci taset mënoon naa bañ a am te daañu def kéemtalaay kàttan ba yoon ñu daal di koy doxal ci mbir mi ay daan yu daal di tar ñu daal di koy teg ci ñi nga xam ne ñoo def lu ñaaw lii ndax nag xel mënta nangu ay nit nekk ci digg tali di rawanteeg di def loo xam ni maa tey la ba jël ay bakkanu xale yu ndaw ndaw yoo xam ne seen yaakaaru waajur lan Cheikh Omar Anne daal di leen di faat ci anam woo xam ne ñaaw na lool libération yéene kaay naan man xamadi rek ñàkkub yar daal lii moo waral accident ba nga xam ni moo am ca taset enquête bi gendarmerie def ci xale yu jigéen ñetti ñoo ñee tracteur bi jaar seen kaw dafa bëggoon gaawantu di dépassé ca dal ci kaw beneen tracteur ba mu bëggoon doublé daal di jaar ci kaw ñetti ndongo yi laata muy mujjee ci benn poto courant borom tracteur ba mu feloon moo daw di sowee xale yu jigéen yi ngir duñu faatu moom ba nga xam ni moo leen fël